Euh, war na mën a seet naka la war a mën a joxe nguur gi loolu tax sax mu ne bon faw mu modifier article trente cinq de la constitution euh, foofu nag lu mu ci jublu rek mooy bu fekkee ne président bi dafa dem ba mënatul feebar wala mu jóge fii euh, mun na seet ne premier ministre war na ko mën a jox nguur gi loolu mooy lu njëkk ñaareel bi mooy euh, Senghor ci atu 1977 def ma invité woon ma def ñetti fan ca Normandie ci ay vacances maa ngi àndoon ak sama soxna foofu nag ci biir waxtaan bi Senghor dafa ne soxla mat na nguur gi ci atum 1978 mu ne bu fekkee ne gagné na ci élection yi fanweeri fan ak benn ci décembre mën na sax bàyyi nguur gi jarul ñu egg ci ni la mbir mi dem. j'ai réfléchi ça n'a pas de sens pour moi de partir en novembre 1981 je partirai le décembre